لك فؤادي يا إلهي يطمئن وكل من قصد خيرك فأن إفس إلهي ساهر وما بطن من المفاسد وصف للعتن هب لي دخولا فيما كساء من في العالي والمعالي مالك الزمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salaamaaleykum mbokki jullit yi ah bu ngeen déggee loolu nag xam ni jàmbaar ji wooteeti na kooku mooy kan Serigne Jili Fall jànkatu xasida taalibe Serigne Masoro Mbacke bu Serigne Cheikhouna Mbacke Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Ubaydu Rabbi Cheikh Abdoul Ahad lu mu wooteeti bisub cant ak bisub delloo njukkal Serigne Touba Xadimal Moustapha at bu jot mu di ko def ren nag mu doon le 13 février bii nu jëm sëriñ Jili Fall di ko def fi mu ko baaxoo di defee waaye sëriñ Jili ah bis bi nag bu jotee mu ànd koog ay bokkam waaye ànd kook waa koñ bi waaye nag ànd koog ay soppeem ba tax na bis boobu nag sëriñ Jili Fall at bu jot mu am kum koy tuddee am kum koy dara jaalee ren kum tuddee bés bi ah xanaa Axmalaat sëriñ Axmalaat mu baax mi soo demee Ndakaaru xam nañ sëriñ laat soo demee Maroc xam nañ sëriñ laat nga dem bitim réew xam nañ sëriñ Axmalaat nga ñëw fii fi tamit am nañ sëriñ Ahmad Laat rawatina Daaru Xuddoos kon bis boobu sëriñ Ahmad Laat moom lañ ko tuddee waaye ba tey sëriñ Jili dara jaale ko ah jigéen ju man góor kooku mooy kan soxna Jombi Cissé doomi ajaratu moomi mbay mi ni jooycunoo péegunu taalibe sëriñ Mbàkke Mouhamed bi moom nag moom la ko sëriñ Jili Fall ah dara jaale sëriñ Jili invité d'honneur kan la sëriñ Fallou Dieng doomi bàyyi Mourtala Dieng ju baax ji jàmbaar ju baax ji nekk ndakaaru moom it digganteem ak sëriñ Djili Fall yàgg na lool ba tax Serigne Djili ni ko yaay sama invité d'honneur waaye nag ku ne xam na ni Serigne Bay Touré taalibi Serigne Son bu mbàkk bi noo lay woo ci bis bi bis bi sa bis la Saliou Mbuub bis bi sa bis la ku ne xam na ni tamit ah Serigne Djili Fall digganteem ak Soxna Khady Thiam moom it ah, Soxna Khady Thiam bis bi sa bis la mbooleem taalibi Serigne yi nga xam ne nekk nañ ci koñ bi rek bis bi kon seen la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw buñ sant yàlla julli ci nant bi sangub sangay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sëñ Tuubaa mu tedd mu kaw mi ñoo ngi sant sëñ Sidi di ko ñoo ngi siyaare Sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi wér di siyaare xalifa général maam Seera Fall xalifa Baay Fall di ko ñaanal mu yàgg fi wér di siyaare nag ñëpp di leen woo ci bis bu màgg bii nga xam ne si moom la sëriñ Jili Fall sama rakk di woote fii ci Touba Darou Khoudoss ci dar yi muy ak cant te it nag di ak ñaan goo xam ne si moom la ñu defal waa barsax yëpp ma di ci woo nag sama mbokk yëpp ci sama tur man Mbaye Fall askanu Paalen yëpp di askanu kër Mama sàmm Sylla Fall maa ngi ci woo ñëpp képp ku ci ku fi nekk rek maa ngi lay woo ku fi nekku tamit maa ngi lay maa ngi la ciy woo commencé ko ci jëwriñ ju mag gi sëriñ Mañaam Fall mu baax mi ñoo ngi koy woo di woo sëriñ Makhtar Fall Baye Cheikh Fall maa ngi koy woo ak Baye Omar Fall ñu ngi ko ciy woo ñaari Omar yëpp Omar Fall tamit ñu ngi ko ciy woo di woo Seydina Aliou Gueye maam góor sëy ñoom ak ñëpp ñoo ngi leen di woo rek di woo ku ci mel ne sëriñ Cheikh sëy ñoo ngi ko ciy woo di woo ñëpp ñi nga xam ne si bokk nañ ci Mame Samba Syll xam naa lim day xaw a jafe waaye képp ku ci nekk rek ñoo ngi lay woo ci sama tur Mbaye Fall ci sët bi nga xam ne si mooy Mame Abdou Fall Aram Kan ñoo ngi la ci woo ndax sëtu Mame Samba Syll moo xewle muy Jili Fall doomu Baye Xaadim Fall mu Mame Abdou Fall Aram Kan mu Mame Samba du fàttewuñu tamit jigéen ñi ñoo ngi ci woo ñëpp commencé ko ci jëriñ ju mag gi soxna Maram Fall soxna Bind Sey soxna Maam Jaara sëy ñoo ngi koy woo Euh, ku ci mel ne maam fàttaloo borom xel mu sell mi ñoo ngi koy woo ak ak waa këram ay xujja faale ñëpp ñoo ngi leen di woo soxna xaar gay fàttewuñu kenn di ko wax tamit sox ku mel ne euh, soxna Marème Gueye di ko wax mu soññal ñu ci limit euh, ni mu ko daan yëglee képp ku bokk kër maam Massamba lu mu soññal ñu leen di si woo tamit xale yi kër maam Massamba si li commencé ci soxna na Seynabou Gueye soxna Fatou Seye ah soxna Khady Fall ñoo ngi woo ñooñu ñëpp soxna Mbacke Fall sama goro soxna Ndeye Gueye soxna Oumy Fall ñoo ngi si siyaare ñépp képp ku koo xam ne si daal bokk nga ci kër maam Massamba Sylla Fall nekk ñoo ngi lay woo ci bis boobu di bisu barsàq nga xam ne si ñun ñëpp fa la jëm yàlla na yeex te te te ku ne am nga fa mbokk kon nag ñaan la goo xam na si ku ne war nga cee dugal sa loxo ndax ku nekk sa bopp nga koy defal te ñoom lii rek lañ fa soxla fañ nekk ak ñaan te ku leen di ñaanal ñoom it dañ lay ñaanal te it seenu ñaan xam naa ne moom moo gën a kii ndax ñoo la gën a jege yàlla ñoo ngi woo ñëpp daal xam naa wax dafa xaw a jafe sax waaye ñu dégg ko noonu rek te waajal ko la treize lay doon. ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen baal ak di leen baal ah bu ngeen déggee suñu kàddu ngeen xam daan waaj daan ko waaj ay at moo egsiwaat muy la 13 di bisu Serigne Djily Fall mi nga xamanteni ni ab jankatu xasaayit la bis bi nak wax deug yalla bis la bo xamne manam ku dégg annoncement ak ku dégg ku gis jotay bi ak ku gis ko nga war xamne bisum la bis bi day bisub sante di bis bo xamne bisu bisub bernde la di bis bo xamne bisu bisub ñaanal way dawli di ci gëna am solo nak moy ñaanal way dawli way dawli mom buñ ko waxe kep ko xamanteni si ni maanaam doomu adam nga sax ay nopp ci bir nga bok ndax ko fa amul yaay am nga fa baye ku amul mag am nga fa rak ku fa amul nijaay am nga fa jarbaat kon sëñ Jili Fall moo ngi woote moo ngi noonu la wootee bis bi bis bi nag ah am na soppiku soppiku bi mooy euh, cérémonie bi nga xamante si dañ ko doon def zéro heure muy mise en place bi ren ñu ngi koy def vingt kon 20h bu ta bu jotee képp ko xamanteni ni am nga ab ciir ci bis bi ñu ngi lay wo nga teel a waaj teel a ak sa mbolo ngeen dugg ci baas bi bis bi nak di bis bo xamné ni bis bu nu fonk la señ Jili Fall fonk nako ko lol lol waye bis bi señ Jili Fall manam da bax rek tuddo ko bop waye bu nu waxé way daw ñun ñepp ñu lan bok señ Jili da jitu ci bop bi rek waaye daanaka ñun ñoy taxawé bis bi ñoy def lepp kon ñi ngi woo koñ bi yépp di wo képp ko xamanteni ni am nga am lante nga ak señ Jili Fall jamm mi ngi lay wo képp ko xamanteni ni ab xaritam nga mi ngi lay wo képp koo xamante si ni ab soppam nga mi ngi lay woo képp koo xamante si ni ab am di jàmm nga seen Djily Fall lay woo kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bis baa ngi noonu lépp luñ fa def ci ay ñaan lépp luñ fa def ci ay kaamil lépp luñ fa def ci ay salaat ala nabi yàlla nañ ko yàlla boole ñun ñëpp defal ñu ay xéewal ci barke Seexul Xaddim ñoo ngi nuyu bu baax tey ziar tey indi kaddu soxna Combi Cissé ñu gën koo xam soxna maam Jaara Cissé soxna maam Jaara Cissé moom Cheikh Mouhamadou Moustapha mën nañ koo wax mën nañoo wax soxna maam jaar Cissé moom Serigne Mbacke Mohamed euh, Serigne Sadd wax na ko léegi ndeysaan euh, yaayam dañuy jooy ci noppeegul muy soxna mooy mbay ndeysaan bu dee bañ ko tudd soxna maam jaara ci lu mel nii liggéeyam ndeyam a tax kon nee nañ mi ngi ci sàkku bu baax ñaanal ko waajurum ja fa mu tëdd ak mboolem ñu fa tëddal comme bisub bisub waa barsàq la yàlla na sàmm nangu ñaan yëpp te boole leen ko nee na mi kontaan lool di am mbégte ci bis bii ñu ko tuddee nee na mi ngi ci soññee bu baax waa koñ bi ak bokki ndom waye nak di ci soññ kenn ci mom ki nga xam ci moko wolu jox ko muy kan sunu mam Xaadim Mbàkke mu suñu Murtala nee mu ko ci soñi di ko ci ñaanal moom itam lim bëgg yalla sa yàlla sa moom defal ko ci barki bis bi bis bi atal nako euh ki koy def atal nako ndax ci xasaay rek lay lay yëngu comme mi ngi ñaan dolli seen Tuubaa lim ci liñ ci ñaan liñ ci sàkku yalla nako ko sama borom defal mam Xaadim Mbàkke neena bëggul dara fenc dara lepp dala nako sama maam Xaadim Mbàkke mu suñu Murtala nee taala mi ngi wo wa koñ bi ak xaritam yi ak mbollem kep ku mu andal liggéey rek sona ciom bi neena na mi ngi lay mi ngi lay mi ngi ci bis bi ndax bis bi kat fonk nako fonk ko xam te ne si ah fam nek mo sori lol waye kon tel bu fam man mi fa ma nekk soriwoon na lol waye daf ma wo jox ma envoyé ma njëgu taxi ma ñew dara lu ko ah, yegg ko yegg gi mu yëg seen jiili ndax booba léegi saa suñu toogee bis bi lay waxe ci ci lol rek la nek ndax kat nee na bu ndem ko tuddu ci Serigne Touba lol jili ah, sama am jaar neena na amul sax fay nee na nag euh, incha allahu taala bu njàll ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm. di leen fàttali ko bésub Djily bi ñu jëm le treize de quinzième édition ki ci woo sama mbokki soxna yëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi góor ak jigéen mag ak ndaw mi ngi woo ñëpp ndax bésu Djily Fall kat warta yomb di nit ku baax ku ñàkk ki ñaan waa ku baax ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci bu baax te taxaw si bis bi. yéen ku ci nekk sa tur ak sa sant. maa ngi tuub bu baax tey jégalu li ma a wax yëpp sëriñ Sadda wax na ko sama mag ju baax ji sëriñ Mbaye Fall wax na ko sëriñ Mohamed Anne wax na ko sëriñ Modou mbay Samb wax na ko sëriñ Tall wax na ko. waaw ah, sant rek tey ñaan yàlla ñu ci yàlla ak sëñ Tuubaa yóbbu bu baax bay eh, ñaan gi nga xam ne moom la ñuy ñaanal way dawli yi ak waa Barsax yàlla na ci yàlla ak sëriñ Tuubaa Mbàkke jotale ci barke sëriñ Tuubaa ak xaside yi amuñu lenn lu dul sëñ Tuubaa amuñu lenn lu dul xaside yi kon bu ñuy woote rek ñun ci xaside rek la ñuy woote waaw ah, leen fàtte woon rek dafa am lu ci bees loo xam ne moo ci xew muy léegi dañuy def chaque année ñu xool mel ne mag mu nekk ci koñ bi ñu rendre ko hommage ren nag ñu ngi koy tàmbale ci sëriñ maam Saliou Seck mii dëkk ci dari moom la ñuy rendre hommage ca bés bi loolu lan ren leen ko xalaat ah, di ko tàmbali ta ah, wax dëgg yàlla kenn kenn mënut a wax koñ bi te tuddoo dari kon boo dee yëkkati lu mel noonu tàmbalee ci kilifa ku toll noonu yaakaar naa dina am barke kon foofu lañ koy tàmbalee di ci woo nag mbokki géwél yëpp ak mbokki yëpp. nga xam ne seen bis la ñoom dañ cee yàgg jàpp waaye kon ren dafa gën a nekk seen bis ñu ngi leen koy soñ ñu baax ni mu ko waxee sëñ Mbaye ture nga xam ne moom bis bi lu ci ëpp moo koy def ak soxna Khady Thiam ñoom ñëpp rek maa ngi leen siyaar ak borom kër gi nga xam ne mooy Serigne Ndiém Ndiaye fi laay defee lépp bu ma xëyee suba bis bi desee ñett fan fi ne bis bi jàllee fi laay ne fi laay lekk fi laay defee lépp ñu jàpp mati Serigne Touba ak xaside yi rek tax maa ngi leen di ñaanal ak ñoomit yàlla na Serigne Touba gën a yokk seen xéewal ak seen xaadim mi ak seen xaadim si la ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax te leen di soññ bis bu baax a baax ah, comme sëñ Baye Fall ni mu waxee rek di ziare suñu baay sëñ Jili faal suñu turandoo ak suñu Baye Fall ñu ngi leen di soññ ñëpp suñu yaay Soxna Seck ak suñu yaay Maram Gueye ñu ngi leen di soññ ñu waaj ko bu baax a baax rek ak waa koñ bi yëpp comme neen ko daan waaji bis bi leen rek laa ci man muy woote waaye ñoom ñoo yor lépp kon seen loxo ci leen lépp lépp nekk su baaxee ñoom ñoo ko baaxal su yàqoo ñoom ñoo ko yàq ak suñu baay Abdou Thiam ñu ngi koy woo bu baax ak suñu baay Mbow ñëpp daal ñu ngi leen di woo bu ñu tuddee rek wala ñu dugg ci lim dañuy daal di daal daal di jum waaye képp koo xam ne rek dëkk nga ci koñ bi maa la ci woo ak sama mag Serigne Gora sekk jànkatu xasaay maa ngi koy woo bu baax moom it ñu ngi siyaare ñëpp jërë ngeen jëf. ah jërë ngeen jëf mbokk yi kon nag bis baa ngi noonu Serigne Jili Fall daal nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn sëñ Modou Mbaye soro coom bi wax na dëgg jël na lépp teg ko ci loxob soxna maam xëri Mbàkke doomi sëñ Mourtala jàng noonu waaye nag ku na xam na ne nag ku tudd maam xëri da nga tudd général Diène Dieye ak Moussa Thioune ak ki nga xam ne mooy Madoun ak ñaana mi nga xam ne moo yore seen famille yi soxna maam xëri Mbàkke yi waaye Serigne Jili Fall nee na Serigne Bay re bis baa ngi noonu de maam Thierno na loo tëye bu mag bi nekk Daaru Xuddoos ah bis baa ngi noonu Serigne Jili Fall daal nee na bis bi mi ngi ñaan ci barke Cheikh Abdou Lahad Mbacké borom daari Kamin ku fi ñëw yal na sa aajo faju ku fi ñëw nag Cheikh Abdou Lahad fat la te Cheikh Abdou Lahad ku mu fat doo fanaan bitti waaye Serigne Modou Lo Dieng bëgg Serigne Saliou kennal Serigne Saliou doyloo Serigne Saliou bis bi tudd nañ ko kon nu ne waaye dañuy jili bés bi sama bés la boo éviter sama rek fàllu rek mel na maay borom kon ñu ngi woo ñëpp bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ونحن كنبي المنيع من كل سرور راسا سنيع خير لنا من منتهى ومتبى من قال في سمن الوباء أمن الله من البلاء من قال في سمن الوباء أمن الله من البلاء